ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yàllaaw jërëjëf mbokk internet yi ñoo ngi leen nuyu tey di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak yéen ci jotaayu xam-xam defe naa ni suñu épisode bële seetaan ngeen ko te yéen ñëpp aimé ndax vraiment appel yi ñu ngi bàyyi ko fu di félicité sëriñ bi ak di ko ñaanal sama borom yokk wér te leeral xam-xam bi bàyyi ko fi nag mu yàgg dimbalee jàmm yi sëriñ bi am na fu nu yemoon mhm. ci sunu bële passé mhm. tey lii di continuité am bokkul ak yi ñu ci war a ñambaas mhm. keroog bi ñu fi jógee naa la sëriñ bi tegal sa baaram fii ci wàll jinne ndax gars yi li ñu yebee jinne yi ba lu ñu jël xëpp leen xam naa jinne am naa jinne jinne sàngam jinne ndàngam mu nekk benn débat controversé ci pinc mi dem na ba nit ñi importance ndax bi ñuy mujjee wax da ni ma nit ñi di ñëwee ñaan lu ci man di yëkkati seen wërsëg di ma jox may faj seen aajo noonu la amee ay kilifa junne yi ñëw ci man di ma ñaan lu di yëkkati seen alal di ma jox hmm. aouzu billahi min alseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa man tabia bil huda ila yawmi aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu buur ñu ngi lay dalal ñu ngi lay ziyaara di la fay nuyoo di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf euh, fa tabarakallahu comme ni nga ko waxee comme émission bi continuité lay doon euh, ñu continue ci deuxième question bi nga dugal te mu jëm ci wàllu junne mm. euh, buur nag li ngay laaj dafa fekk ni daanaka téeméeri nit laaj nañ ko waaye ku leen ko jàllaleel lañ amul ba nit ñi xam ko mbirum junne nekkul ni ab Sénégal rek moo ko war a xam ndax junne Sénégal dong la am déedéet dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci àdduna bi comme ni nit ñi tasaaroo ci kaw àdduna noonu la yàlla tasaaree junni yi ci kaw àdduna kon lu ci waay waxee Sénégal kane Australie da ko war a xam kane Inde xam ko ndax junni junni rek la du nekkul Sénégal ba ay sénégalais dong nga ci am xam-xam junni yi nag dañoo am ay njiit comme ni ko nit ñi amee seeni njiit nag am na ci ñoo xam ne yonent bi ci boppam moo leen def ay njiit boole leen ak junne yi am na junne yu ñuy wax Muhammad Daalun taalibe bi yonent bi sallallahu alayhi wa la woon mbooleem junne yi li ci ëpp ci moom lañ jaare ba tuub fii ci Afrique tey junne yi ngay laaj seenu mbir waxuma la senegaal waaye Afrique gépp buurub junne bi fi nekk mi ngi dëkk Congo Kinshasa ci foore bu ñuy wax Lumbasi mbasi la tudd te jigéen la. te ba tey mooy buuru junne yi ci Afrique. mooy buuru junne ci Afrique gépp parce que terre bi gën yaatu ci Afrique fa la dëkk foore bi mu dëkk tubaab bi am nañu wax ni cent ans ngi nii nit tegu fa tànk ci biir forêt bi diggante Kinshasa ak mbasi bu ko vol tiimoon di ko naaw pour mu génn foore bi na def quatre heures de vol. moo ëpp distance su Sénégal Côte d'Ivoire. bokk na ci yi gën a yaatu Afrique gépp mooy seen jiit gépp nag fii ba Éthiopie Afrique gépp moo jiite junne yi junne yi ci boppam fii ci senegal rab wi ko jiite ci junne yi jigéen la du góor. mbaa du may mën a déedéet ñooñu ñëpp ay ñu askanoo ci junne yi ami tur lañ rek ñu xam leen comme ni ñuy xamee ay kilifa ci réew mi waaye amul kenn ku ci jiite senegal maanaam junne yi nga fi dégg ñu leen di wax Sénégal te junne yi nit ñi xam seeni tur ñoom ñëpp bu doon dañu am lu am importance la junne yi waxtaanee war a réunion kenn du ci dem. mais loolu mooy lan parce que junne yooyu wala rab yooyu ay rab yu ñuy vénérer la quelque sorte. di leen tuural di leen màggal di leen ba dëkk bu ci nekk ñu ne rab sàngam moo ko dirigé xam nga tey boo demee fii ñu ne rab sàngam ko dirigé rab boobu dirigé wul Touba dirigé wul Kaolack wala loolu bokkul ci réew mi dirigé wul Tamba Kédougou seen nekku ci mhm. dama la Sénégal laa lay wax man waxuma la ay Dakar ak koñ beek lébu yeeg ñeneen la lañ gëm mhm. ci xam-xam laay wax dama ne rab wi jiite senegal bu woote woon réunion rab yi nga xam yëpp kenn du ci dem ndax ku ci am importance ba war a fekkee débat bi amul. mais man loolu dese na leer ci sama bopp. am ñan ñooy dem. xam nga Sall tey bu wootee woon nekkul ni chef de quartier yi nit ñi xam ñooy dem palais toog. wala chef de village. waaw du conseil des ministres ministres du ministre de l'intérieur mooy ñëw. Mhm. premier ministre. Mhm. président assemblée. noonu la demee ci catégorie junne yi fi mu ne senegal junne yi ko ŋànk nit ñi xamuñu leen. mais lu tax ñàkk xam boobu. waaye ñàkk xam boobu mooy ñiy wax mooy ñiy door dal te kenn ku nekk li muy wax waxu ko ngir réew mi waaye da koy wax ngir communauté bi mu bokk. ngir aw waaw kenn ku nekk day dooleel rab wam nekkal fexe koo siiwal ba ñépp xam ko te nekk ak rab taxul muy rabu réew mi saw rab la yow. yow la amal affaire yaay lébu yaay daanu yaay tëgg say jéjjékk def yëf am na ci junne yoo xamante ni si nii ñii ñu nekkal mooy jànkat alxuraan yeeg ibaada yeeg yooyu ñoo leen concerné am loo xam ne murid yi am yoo xam ne dañuy xadra defi nekk ak tijaan yi. Mhm. mus ñoo teg seen tànk ndakaaru. maa ngi dégg ngi maa ngi maa voilà noonu la mbirum junne demee mhm. réew mi ni mu amee junne ju ko jiite noonu la amee. rawxaan. kon jinne ji ak rawxaan bi duñu benn. duñu benn. la junne junne la rawxaan nag mbir la moo xam ni meneen mbir la rawxaan du moroomu junne. rawxaan moo moo mën junne. bokkuñu junne ju ci nekk sax bu bëggee jëfandikoo lu am solo ci rawxaan bi lay jaar moom man nag gis naa ko ñaari yoon. rawxaanu réew mi man man dépassé na ay rab buur rawxaanu réew mi laa la wax gis naa ko ñaari yoon benn bi ak korite la njiitu réew mi di génn xam naa ñàkkul ni bu rawxaan bi génnul woon ma xool buur ci la bokk ci liggéey bi fi nga nekk sëñ bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa doy waaw rawaxaanu réew mi buur gis naa ko ñaari yoon benn bi nee naa la njiitu réew mi moo doon génn ci bisu iit ci korite rawaxaan bi génn bóof ci kawam. pourtant am na ab seetkat bu ko boobu ba mu koy wax jamono boobu xam ma lu mu nekk de. Mm-hmm. waaye billaahi na mu ko waxee woon noonu la amoon loolu uufoon président mooy rawaxaanu réew mi. yàlla mooy maye man du ma ko weddil mayam ay keroog ba mu waxee xam naa ne dina wax lu am ak lu amul mais lii mu wax moom am na ndax man ci bàttin gis naa rawxaan bi jàkk te xam naa ni mooy rawxaanu réew mi waaw ndax sama maam dañ daan jëflanteeg moom ma xam ko gis ko gis ko mu uuf njiitu réew mi te keroog bu génnul woon uuf ko mbir am buur mbiri téléphone bi sëriñ daal kenn du comprendre buur tee ko nag tey <laughs> dégg nga wax bi gisaat naa rawxaanu réew mi bi sëñ Sidi Mokhtar Mbacke génnee àdduna mu dem Touba. kon bi dem Touba rawxaan bi leer la goo xam ne ni mu leeree ku amul doole ju bàyyee ci suñ boroom. boo nee ko jàkk bis boobu moom ca ngay faatu. ndax ci puissance de lumière. waaw kooku googu ruugu setul àttanu ko. yaa ngi dégg moo tax dina ànd ak kilifa def li mu war a def ba bàyyi te kilifa gi sax du a xam ne moom la àndaloon danga wax bi rawaxaanu réew mi buur lii maa la koy wax ku dul man du la ko wax ñaari waxtu rek lay dox ci réew mi. waxtu yoor yoor jamono boo xam ni naaj yu munta lakk kenn muy jàpp dix heures jëm suuf waxtu tàkkusaan suuf jant bi mënatula lakk kenn ku koy diir ci réew mi waxtu yooyu nga koy jot te daam ci bis yu ciy dox mais ñaari waxtu yooyu day waxtu yoo xam ni mooy waxtu rawxaan waxtu waaw xam nga mag ñi boo gisee doomu aadama buy judd bañ koy door a jox tur dañ koo natt ñoom ci yoor yoor def sarax baag def yow am na lu ñu ci jublu ndax du farata hmm. yaa ngi dégg hmm. foo mës a déggee ñu ne diw faat na ba ñu tas mbooloo ma tàkkusaan ñu tas ko te itam boo xoolee ñiy tudd yàlla gannaaw tàkkusaan waxtu woow ma lay wax ca lañuy faral di toog daje dafa waaw dafa am lu tax dafa waxtu yooyu nee nañ bu nit ñi gi doon mën a gis dinañ gis ni asamaan si day gën a jege suuf si waaye ñi mën a gis ñoo bariwul te wax naa la ko barki dem ci émission ba nee naa la foo fekk kuy wax ca kaw day door a dal am njàng waaye ku mokkal noppi sëgg di yër allahu akbar ku mokkal noppi sëgg di yër sëñ yéem ba tey ci sa savoir faire mooy ku lay déglu pédagogie bi ngay waxee dafay xam ne sëñ bi li muy wax nii am na ci maîtrise bu wér man mi néewum jàng sax effectivement convaincre à travers tes propos ginnaaw rawxaan bi jinn ndax dem nañ ba wutal ko waaw jinn may fii Dakar ku ne am na fi wutur borom xaalis bu ne am nga wutur diw nangam diw nangam am say mbooloo am say fans mm-hmm. waaye réew benn nit a ko yilif muy Macky Sall. Mm-hmm. doo fi dégg ñaari président mu ne keneen ku nekk sa roq de yor say mbooloo ak sa yëf de def sa yëf noonu la mbirim junne yi demee nee naa la junni ji nga xam ni mooy kilifag réew mi te dëkk ci suufu xeer wi ndox mi daw kooku damay bañ a wax turam pirate bi moo bari buur waaye xam nga ne li ma lay wax maa la ko gën a xam foofu Dakar Tëngéej ki di la déedéet représentant day am am na fi daal ay ambassadeur waaw mbirum junne doxewul noonu junne ak tan daanaka dañoo xaw a nirooy bagaas gis nga buurub tan du foo jóg rek gis ko waaye lu xew balaa benn tana li ngay laal mu ñëw buurub junne nekkul ni ku jóg rek gis ko waaye lu xew balaa jën junne def xalaat wala ngay am lenn loo cay def ak wax moom mu def ba pare wax ba pare junne yi ci réew mi am nañ kilifa suñu kilifa gii nga xam ni tam moo nekk rabu réew mi di jigéen yilif leen ñoom ñëpp noonu la amee ay kilifa yu junne yu ko ëpp garaat yoo xam ne bu àggoon ni nit ñi foqatee seen mbaxana toog ci seen kil kanamu kilifa noonu la koy defee ci ay moromam. sëñ am connexion. bu direct ak ñoom tey ñi nga ciy jëflante ci wàllu baatin maanaam yow say jinne comme par exemple mhm. yan xeeti jinne la seen biir jëflante waaw xam nga man tey ba njaay gii boo fa demee tund woowu wépp xam nañu dafa am jenn junne jigéen ju fa dëkk ñu koy wax maram golo njaay mhm. sama maam ako moom man surtout songa njaay laa dret tund woowu wépp suuf safa moom mën naa mujj nekk mën naa mujj sama loxo bii ismulaayil azam moo ma tàqaleeg loolu samay maam ay wëlliw lañ demoon nañ ba senegaal gépp buñ la ne woon wàññeel ñiin fukki wëlliw ak benn ñaar fukki ak ñaar samay maam la ñuy doon ci tarixa bu mën a doon mm-hmm. waaye ismilal ahzam moo ñu tàqaleeg yenn yi moo ñu branche ci yenn yi ndax ci ismullahil azam boobu sëñ bi dem nga ba am ci benn sécurité yàlla bu ama am solo mm-hmm. te li la xam à travers <laughs> l'Europe l'Asie biir Afrique ak li ko wër ci secret tur yàlla boobu lañu ko xamee ci yow. waaw xam nga buur ismulal azam wax naa la ni la ci la mbir mi yam fa la mbir frankulaaye waaye man tariqul istixfaar dama koy jàngale te tariqul istixfaar mooy secret boo xamante ni si nii nit yàlla yi ci kaw suuf yépp dëppoon nañ ni buñ la doon laaj jooni jooni ci wàllu yàlla lu gën a gaaw tuub gisuñu ko tuub nag dafa am benn taalibe Baye Niass bu ñëwoon ni ko dama bëgg a tuubal suñ borom mu ni ko ñi ko man bariwul demal nga jéggalu ni ko nit ñi defee ndax tuub mooy loo xam ni jamono bi ngay tuub jamono boo amee connexion ak yàlla danga koy wax ni ko li ma defoon dootuma ko defati li des ci sama dund jamono boo ko defatee dootootu buñ nangu dégg nga wax bi jéggalu nag kenn ku ne mën nga ko lii maa ko def jéggal ma lii maa ngi maa ko def jéggal ma waaye tuub naa ko boo xasee ba tuub li daj sëg dund dootoo def lu ñuy tuub teel amul ñaari nopp amul jotuk sax nga wax li weddi ko waxaat ko nga ñu ñu lay konte moo tax lenn lu ne dafa dafa am ñu ko man ci wàllu ñaan yàlla fii ci Sénégal bari na ñoo xam ni mënuñoo ñaan lu nangu mooy nit ku ami bàkkaar wala ku setul lañ munta branche la ci boromam te nit bala nga la ci yàlla jéggalul ko ay bàkkaaram ku munta jéggalu sa bàkkaari bopp noo jéggale bàkkaaru keneen loolu de moo tax tariqul istixfaar dafa am yoon wu ñuy tuubee am ay salaatu yoo xam ni moom lañ tuddee woon jóoni jooni ci jamonoy mag ña lu mel ni salaatu naari lu mel ni sirrul wi da ngaa déggati ko wax ci réew mi. turu yàlla yooyu mag ñi dañ koo ràbboon mu jóge ci loxo yu wëliw yu wér waxuma la nag ay wëliw Sénégal ndax adduna bi dafa bari ay wëliw Ahmad Badawi wëliw la. Imam Nawawi wëliw la. yoo xam ne lenn lu nekk ci sikar génn nañ ko teg ko tranché ko wane dictation bi fi ñu ciy jaar xam-xam boo ko bëggee xam. doo yam Sénégal man dem naa ba Turki ci gëstu baatub laa ilaaha illallaah toog ceeg sëtub yonent yàlla Ayyuba waaw ñuy waxtaanee secret boo xam ni mooy kënsul kunuusi kënsul kunuusi dangay ngay wàññi réew mi sax ñi xam lan mooy kënsul kunuusi bay bay bay dugg nag naan dañuy toj secret bi am secret bu ñuy wax aynul anwaar ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay dolli noo ay maqaama yàllaaw